salaamaaleykum mbokk déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg yoonu njub bi mu tëral te di ko topp ngir am jàmm ju wér ak moom rekk am na nu mbégte ci lu mënu dellu yéen ci seen émission yoonu njub ab woykat mës na wax ne bu amoon saaku xaalis du tala nelaw wax na dëgg ñi barale alalu àddina wala di ko sàkkoo barale dañuy soobu ci fitnaak njàqare yu bare ba tax seeni nelaw du doy waaw mbokki déglukat yi tey jii dañu bëggoon waxtaan ak yéen ci lii di alal nu fas yéene gis ni ñu ko war a jàppe mu dëppook li ci kàddu yàlla wax bi mu naan ragal yàlla gu ànd ak doylu wërsëgle ndaxte indaale wunu fit dara te dunu yóbbaale dara kon su nu amee lekk ak koddaay nanu ko doyloo waaye ñiy sàkkoo barele dinañu jànkoon jànkoonteeg ak ay nattu ba dugg ci fiir di xuus ci bëgg-bëggi neen yu yóbbe ayib tey sóob nit ci réer ak sànkute ndaxte bëgg ci xaalis mooy ndeyu ñaawteef yu bare am na ñu ko wut ba moy ci yoonu ngëm te seen xol di dagg ndax tiis yu bare te sax moom àddina sépp lu muy jëriñ nit bu ñàkkee bakkanam kon sunu sukkandikoo ci aay yi nu jàng léegi dañuy gis ne ngëm gu dëggu alal la ci kaw nga doyloo yàlla bu ko defee nag yàlla du la fàtte mukk dëgg la alal aayul li nu bëgg a wax kon mooy ni nit kiy gise alal ni mu koy wuute ak ni mu koy jàppe loolu mooy li ko mën a indi lor mbaa mu jariñ ko ñu bare ci ñiy sàkkoo barele alal seen yitte yépp moo di yokk seen alal ak nu ñu ko mën a yokke nag noonu yàlla dootul sax am palaas bu jëkk ci seen dund alal alal alal rek te su nit demee ba tollu foofu alal jaa koy moom kàddug yàlla nag moom dafa wone ne alal ji lay jariñ mooy alal ji la moomul maanaam alal ji nga ñàkk mu lew la domm te it nga koy jëfandikoo ci li neex yàlla mbokki déglukat yi loolu la yeesu bëggoon a wax bi mu naan mbooloo ma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 wutinu alal dafa war a sell su dul loolu ni ko yonent yàlla suleymaan waxe alal ju lewul lay doon te buy dem dafay mel ni luy naaw ñaareel bi bu fekkee nag yàlla dafa la dénk alal mu lew la ni nga war a def mooy dajale ko ca laaxira ci banque bu wóor bi ni nga koy defe mooy di ci wodd ak a leel ndóol yi nga xam ni ñoo tax ñuy wax ndóol waaw yenn saa nga gis nit ñu ne la dafa ñàkk te muy jëfandikoo ci yaramam ay produits yu koy soppi te ñu jafe lool fan la nit kooku di jëlee lu mu koy jënde ndax dafa ko mënul woon a jëfandikoo ngir dund loolu benn rek la ci biir yeneen misaal yu bare yu ni mel mbokk yi yàlla dafa nu sàkk ak am xel nu war ci xalaat bañ mel ni ay bàyyi ma ci loolu kon nanu bàyyi xel ci ne keroog bés ba yéesu dina ñëw ci ndamam te dina falu ni buur dina toog ca jalam bu solo ndam bu boobaa dina dajale xeeti àddina yépp xaajale leen ni sàmm di xaajale ay xar ak i bay noonu yéesu dina ne ñi féete ci ndeyjooram maanaam ñi daan wodd ñi rafle te daan leel ñi xiif ak ñoom seen agsi leen yéen ñi sama baay barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal li dale ca njalbeenuk àddina ndaxte xiifoon naa ngeen jox ma ma lekk te mar ngeen jox ma ma naan nekkoon na ab doxandeem ngeen fat ma te rafle ngeen wodd ma woppoon naa ngeen seet ma te ñu tëj ma ngeen ñëw fi man ci kaw loolu ñi jub dinañu tontu ne borom bi kañ lanu gisoon nga xiif nu jox la nga lekk mbaa nga mar nu jox la nga naan kañ lanu gisoon nga nekk ab doxandéem nu fat la mbaa nga rafle nu wodd la kañ lanu gisoon nga wopp mbaa nu tëj la nu ñëw ci yow noonu buur bi dina leen tontu ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa yu ngeen defalee loolu kenn ci ñi gën a ndaw ci samay mbokk yii man ngeen ko defal gannaaw loolu buur bi dina wax ñi féete càmmoñam maanaam ñi daawul wodd ñi rafle daawuñu leel ñi xiif ak ñoom sem te fekk mënoon nañu ko buur bi dina ni leen sore leen ma yéen ñi alku te dem ca safara su dul fay si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam ndaxte xiifoon naa waaye joxu leen ma ma lekk te mar waaye joxu leen ma ma naan nekkoon naa ab doxandéem waaye fatu leen ma te rafle waaye woddu leen ma woppoon naa te ñu tëj ma waaye seet si wuleen ma ci kaw loolu dinañu tontu ne borom bi kañ lanu la gisoon nga xiif mbaa nga mar nga nekk ab doxandem mbaa rafle nga wopp mbaa ñu tëj la te toppatoo la kon dina leen tontu ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa su ngeen ko defalul kenn ci ñi gën a ndaw man ngeen ko defalul noonu ñii dinañu soobu ci mbugal gudul jeex waaye ñu jub dinañu tàbbi ci dund gudul jeex loolu moo taxoon pool ndawu yéesu kirist waxoon timote mi nekkoon njiit ci benn jàngu ne ko ñi bare la alal àddina nag dénk leen ñu bañ a rëy te bañ a wékk seen yaakaar ci koom-koom yi saxul fenn waaye ñu wékk ko ci yàlla mi nuy may naataange ju mat ngir nu mën ci bànneexu dénk leen ñu fàggu dencu ëllëg bu wér noonu dinañu feddali seen téye ci dund gu wóor gi mbokk yi ñuy déglu nii lanu yàlla dénk ay pexe yu nu mën a aw ba liggéey loo xam ne lu nu mën a denc lay doon ci sàq ya ca asabaan ngir ëllëg mu nekk kaalak ndam ci nun noonu bu nu demee ba ci sunu mujjug dund dinanu mën a waxandoo ak pool ne bëre naa ba ub làmbi ngëm daw naa ba ak fi mu ne yàlla ngi may xaare añu ku jub di kaalak ndam gi ma borom bi àttekat bu jub di jox ca bés ba kon xarit yi leer na ne nun bëggunu wax ne boo amee alal rek nekk nga ku war a tàbbi ajana sooy saraxe ak a wodd aji rafle déedéet dafa am lu ko war a jiitu mooy danga war a jëkk a gëm ki yàlla yónni ngir musal la ci mbugalu bàkkaar di yeesu kenn du jiital ab saret soog ca takk fas wa fas wi mooy jiitu saret bi topp ci mu koy xëcc noonu la ci mucc gi ak ci jëf yu baax yi say jëf yu baax mënuñu la musal kàddug yàlla dafa ne ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yenn mayu yàlla la du peyu jëf ngir kenn du ci kañu ndaxte jëfu yàlla lanu moonu bind ci yeesu kirist ngir nuy wey ci jëf yu rafet yi mënu fàggaloon ca njalbeen ga waaye nag yow mi amul alal amuloo barke ba tax nga bëgg a jàq bul jàq yow itam mën nga am alal joo dajale ca laaxira jaare ko ci sa ngëm ci musalkat bi yàlla yónni mu deewal àddina ca bant ba kon gëmal yéesu kirist te doyloo yàlla te noonu am nga lépp noonu bul jaaxle ti dara ndaxte su boobaa dinga am li gën a am solo muy mucc ci safara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 ndax ëpp leen maanaa picc yi ci lu bare bu leen jaaxle nag waaye jëkk leen a wut nguuru yàlla ak njubteem te loolu lépp dina leen ko ci dooleel mbokki déglukat yi ni nu ko gise ca ndoortel njàng mi bëggunu jàngale ne alal dafa aay li nu bëgg a wax mooy fi nit kiy teg alal maanaam ni muy jàppe alal ji mooy li am solo dafa am bés benn waxambaane wu bare alal seeti yeesu ne ko kilifa gu baax gi lu ma war a def ngir am wàll ci dund gu dul jeex gi yéesu tontu ko xam nga ndigali bul boom bul njaaloo bul sàcc bul seede lu dul dëgg bul nangu alalu jàmbur teralal sa ndey ak sa baay waa ji ne ko kilifa gi loolu lépp sàmm naa ko li dale ci sama ndaw ba tey noonu yéesu xool ko am cofeel ci moom mu ne ko lenn rekk moo la dese demal jaay li nga am may ko miskin yi te dinga woomle ci asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man waaye ci wax jooju xar kanamam lëndëm mu jóge fa ak ndaxte ku bare alal la woon noonu yéesu xool taalibe yi ko wër ne leen boroom alal dugg ci nguuru yàlla lu jafe ngoogu wax jooju nag daldi jaaxal taalibe yi lool waaye yeesu neeti leen samay xarit dugg ci nguur yàlla lu jafe ngoogu giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb borom alal dugg ci nguuru yàlla waaye ñu bare ci ñi jiitu ñooy mujj ñi mujj ñooy jiitu ji haa li yéesu wax doy na waar kat mu ne gileem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb borom alal dugg ci nguuru yàlla te ñu bare ci ñi jiitu tey ñooy mujj ëllëg te ñi mujj tey ñooy jiitu ji waaw ñooñu ñooy boroom alal yi nga xam ne seen alal la leen moom boroom alal yooyu nag boo ko seetee daanaka ñoo jiitu ci lépp fii ci àddina lu ñu joxoñ ñu dagg bunt bu ñu fëgg ñu ubbil leen ko ñooy jënd ndawal buur gar liggéeykat bu gore bi ba mu soobu ci lu yoon tere ak ñoom seen waaye li ñu war a xam mooy bu ñu teelu la dakkal li ñu nekkee te jóg ci seen bopp jébbalu ci borom bi dinañu bokk ci ñiy mujj ëllëg ni ko mbind mi sell mi waxe te kon dinañu bokk ci ñooñee buur ba nara wax sore leen ma yéen ñi alku te dem ci safara su dul fay si ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam kon xarit yi tàbbi ci safara su dul fay mukk ndax bànneexu ab diir ci àddina si di wéy jar na ko déedéet kon nag saafara si mooy nga gëm yeesu ni sa musalkat bi dee ca bant ba ngir musal la ci safara gannaaw gi nga wékk sa yaakaar jépp ci moom di def lépp ci turam te itam ngir moom rekk te noonu yaa ngi dajale alal ca laaxira fa ko max ak xomaag dul yàqe te sàcc du ko jot kon sama waay léegi leer na la ne sa alal mën naa tax nga sànku waaye itam sa alal mën naa tax nga am ay yooli yool ca laaxira waaye nag amul kenn ku ak muccam mën a aju ci alalam fii ci àddina ngay amee mucc gi fii nga koy ñàkke itam ni ko mbind mi sell mi waxe ne tey jii la jamono ju jekk ji tey la bésu mucc gi kon loolu mooy tekki ne fii ci àddina rekk nga mën a gëme yéesu mi la mën a musal te boo deewee tàbbi ajana waaw tey jii la du ëllëg du ci sa kaw yi jëf walla ci sa kaw alal ju bare ci sa kaw ngëm ci musalkat bi dee ci palaasu bàkkaarkat yi rekk la fàttalikul ne nit ñax la ndamam di tóortóor kese ñax day wow tóortóor ruus waaye kàddu borom bi day sax ba faw loo barele barele dinga ko fi bàyyi bés noonu soo moomoon àddina sépp ba noppi boo deewee ñàkk sa bakkan tàbbi safara lu mu lay jëriñati xamal ne ak loo mën a wecceel sa bakkan rekk jaru ko kon dund ba faw ci àjjana ngëm ci yéesu rekk a koy maye kaal ndam ak alal ju wóor ca àjjana mooy sa liggéey bu takku ci sas wi la borom bi dénk mbokki déglukat yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey ngeen bindunu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddug yàlla wax ne ragal yàlla gu ànd ak doylu wërsëg la te it moom àddina sépp lu muy jëriñ nit bu ñàkkee bakkanam te nit lu mu war a weccee bakkanam